رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا تد حامد جدوم تي شيخ محمد الماحي إبراهيم نيس خادم الأمة خليفة الفيضة التجانية الإبراهيمية لنونو في تاي بور وقتان أسكنوي تايد jottali leen message yu ngërmande boo xam ne mi ngi jugee ci sëriñ bi waaye it jottali message wu ngër mànde bi nga xam ne mi ngi jugee ci taalibe ndaxte gis nañ li nga xam ne ci lañ nekkoon fan yii yëpp sëriñ bi nekk ci jugee woon fii le 14 demoon fi nga xam ne mooy réewu Soudan. ak la nga xam ne moo ko fa yóbbu woon ci kaw invitation bi nga xam ne jugee na ci gouvernement Soudan pour ñu ñëw mu ñëw jàppale leen ci li nga xam ne moom mooy féewaloo ak tour deret ba nga xam ne moom moo fa nekk yàlla def mu jógee fii ci jàmm dem ci jàmm defal leen li nga xam ne moom lañ sàkk woon ci ñoom waaye yàlla tamit def ci xéewal awale ko ci yoonu ki nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Islam Alxaaji Ibrahim Niass mi nga xam ne moom moo waxoon ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila xadrati lbarri rahimi ila ñu ngi sant yàlla ci ba nga xamee ne dem na ci jàmm ñëw na ci jàmm yàlla may na ko fa ndam boo xam ne tey jii àdduna bi yëpp moom la ñuy waxee ndaxte li waral ni mën a teg suñ tànk ne àdduna bi yëpp ci la ñuy waxee dafa nekk ne dafa am organisation bu ñuy wax Nations Unies ndaxte ñëpp jàppoo nañ ne sëriñ bi mi ngi waroon a ñëw àllarba waaye Nations Unies mooy ñi nga xam ne seen ndaw nga xam ne àdduna bi yëpp ñoo fa ñoo fa bokk am représentant seen ndaw bi nekkoon ci Soudan moom moo ñaan sëriñ bi ne ko dañoo bëgg nga toog parce que ñun dañoo bëgg ñëw li nga xam ne tëwoon nañu nga defaral ñu ko moom moo tax il faut suñu gisanteeg yow ci bés àllarba bi kon ñu ngi lay ñaan rek nga soog boo toogee ñu ñëw dëkk la suñ micro dëkk la suñ nopp nga wax ak ñun wax ñu ni nga def ba réussir mission bi ndaxte am na yeneen réew ak yeneen réew yi nga xam ne soxla nañ expérience bu ni mel. te tamit loolu mooy li waraloon sëriñ bi ñëwul ci àllarba bi ñu ko doon fuglu yàlla def mu déparé fa alxamis yi fa alxamis waaye mu dogal ne mu egsi fii Sénégal. waaye ba muy ñëw nag Sénégal yëpp génn toog di ko xaar ndaxte Sénégal yëpp kontaan ci lii képp kuy doomi sénégalais rek gis nañ ne wane nga sa kontaante wane nga sa mbégte wane nga sa mbégte ci lii nga xam ne benn doomi Sénégal benn doomi Kaolack benn doomi Saalum benn doomi Medina Baye moo jug dem defari ko te ba muy jug di ko defari àndut ak ak benn ordre de mission boo xam ne jugee na ci leneen waaye mi ngi ànd ak li nga xam ne mooy ne man doomi Sénégal la mooy ne man jullit la mooy ne bu ma demee ay nit laa fay fekk te bu ma waxee ak ñoom dinañ dégg te buñ déggee dinañ topp loolu la doon ñaan yàlla ci balaa muy dem te alhamdulilah yàlla may na ko loolu ndaxte gis nañ li nga xam ne li fa newoon ci couvre-feu mu nekkoon fa nga xam ñu ko fa instauré depuis lu ëpp 3 mois alhamdulilah keroog ba mu jugee ci àll bi ba ñëw rek toog ci capital bi ci lañ xëy dindi ko loolu mooy nekkoon instabilité ak sécurité mi ngi commencé ñëw di di di lalu ci réew ma te gis nañ tamit ñi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ci dëkk yooyu ñoom it ñi wax seen kontante ak seen mbégte di wax ne sëriñ bi fan yim fa nekk yépp benn chakawa manam ben ñëw tawat ci ne dañoo rey diw wala dañoo jàpp diw wala dañoo kii wala dañoo dañoo agressé diw amu fa benn yoon ci diggante ba mu fa nekk yépp te it ba mu egsee ba léegi dégguñu ko kon amuñ lu dul sant yàlla waaye nag ginnaaw buñu sante yàlla ci loolu noonu yépp dañuy sant it ñi nga xam ne fexe nañ ba loolu àdduna bi yépp jot ci te loolu mooy média bi te bu ñuy gërëm média dañuy gërëm média bi nga xam ne mooy suñu média personnel nga xam ne mooy média dalaa la xadara ndaxte ñoom am nañ ci def nañ ci lii wàll wu am am am am am solo ba tey jii nii lii fu egg ñëpp eggale ko fa ba yeneen média yu mag yi tamit ne ah lii buñ ko wanewul suñ gàccee la te loolu lan lan moo ñu ko may mooy média bi nga xam ne mooy média de xadara nga xam ne ñi ngi def liggéey bu ama ama am am solo ci xadara bi fépp fu ñu leen oo di ñuy daw ñoom ñëpp dem te fu ñu leen oowut tamit dinañ fa dem lépp loo xam ne gis nañ ko ne lu ñu war a relier la nit ñi gis ko ñu ngi koy def te bàyyi dafa daan wax ne ana laa ujaasi al ihsaana bin nisyaan man jëf ju baax duma ko fayee fàtte teraanga duma ko fayee fàtte te vraiment gis nañ ni taalibe yi fugloo woon bëggoon sëriñ bi wàcc ci aéroport bi nga xam ne mooy aéroport Léopold Sédar Senghor te xam nañ ne foofu aéroport militaire la aéroport boo xam ne pour président la ak moroomu njiitu réew mii di fa wàcc waaye ñi jël ñu may ñu lii te nit ki boo bu ñu la defalee teranga boo ko waxul rek daanaka dafay mel ni gërëmoo te ñun képp ku ñu defaral dinañ la gërëm dinañ la ñaanal te dinañ la dimbali te lii nag dafa am ñoo xam ne dañ cee taxaw xar ci seen tànk tubéy def ci lépp lim ñun waaye buñ demee ne buñ demee ba ñeme cee xar seen tànk tubéy du ko def dafa fekk ne ki leen jiite moom moo leen may fit boobu noonu ñi am pour mën a wax ci loolu kon dañuy yital ci gërëm le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ndaxte mënoon nañoo wax ne déedéet aéroport bii nii aéroportu président yi la ak militaire civil amul droit wàcc fa waaye waxuñ loolu dañoo nañu comme lii ngeen bëgg li lañ leen di defaral waaye nag dafa am ci ay loxo yoo xam ne ci moom la jaaree ci ñoom la jaare te dañ ci jiital ki nga xam ne suñ mbokku taalibe la doom la ci kër gi ndaxte ci lépp luñ ko oo loo xam ne ci lu jëm ci xadara bi la bu sëriñ bi yëgee ak bu yëgul yëpp def ci kenn du ko ci jiitu moom xaarul du xaar mukk ñu ne ko sëriñ bi oo ko ne ko lii laa bëgg bu déggee ne sëriñ bi soxla na rek dafay jógal boppam ba ngërmande fekk ko ci ñi ciy jiital Pape Mademba Bitèye di le directeur de la Sénélec président ñu ngi lay wax ne ma Pape bi tey lépp loo xam ne xam na ne sëriñ bi bëgg na ko rek xamal ne mi ngi ci nga yëg ko ak yow nga ñàkk ko yëg keneen ki ci tege mooy Mouhamed Ndiaye Rahma ñu ngi gërëm tamit monsieur Souleymane Ndiaye boroom SDD moom tamit nit la koo xam ne sonn na lool ci mbiru ñëw sëriñ bi kon comme ni ma ko waxee rek ñii nii mooy ñi nga xam ne vraiment ay ndawal président lañ yoo xam ne loo leen oo ci mbir sëriñ bi duñ ci xaar te duñ ci vérifier dañuy def ndaxte dañoo jàppee ne sëriñ bi seen wayjur la ñoo ñu président ñu ngi lay wax ne la ñett ñii xamal ne ñi ngi ci li leen war ci seen diggante ak sëriñ bi ak yow waaye tamit di ñaanal yàlla taalibe Baay yi ndaxte wàññi nañ seen mbëggeel wañe nañ seen mbëggeel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ndaxte lii ñu def dakaar def ko mbuur def ko Fatick commencé ko ci buntu Kabatoki doxee ko ba biir Medina bàyyi topp oto yi ful boo xam ne ñëpp gis nañ ko ci média bi loolu vraiment mbëggeel moo ko wane nit ñi bëgg nañ bàyyi te comme nag nit ñi bëgg nañ bàyyi dañ leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla may leen seen mbëggeel boobu noonu ñi ngi sant ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii nii Kaolack di xaar sëriñ bi ay fan ak mobilisation bi ñu fi def yëpp ñëpp génn dëkk bi ñëpp génn nañ Sénégal ñëpp kontaan nañ gis nañ déclaration yi nga xam ne defee nañ ko nag ci boor bu nekk ci kër diine yi ak seen tele yi gis nañ ñi nga xam ne suñ mbokk suñ suñ baay Maodo Malick bi nga xam ne moom ak sëriñ bi ñoo nekkandoo woon Maodo Malick baax nga xam dom la ci suñu mam sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh déclaration bimu def gis nañ suñ mak suñ mbokk imam rufai mu suñ baye Serigne Fallou Mbacké déclaration bimu ci def ak wax bimu ci wax ak kër diiné yépp nak ndax ko lim da ngay joom waye xam nañ ne ku wax Touba wax ci Tiwaawan moy ne wax nga kër diiné yépp comme niko ko bi waxé bam waccé ne moom force bi ko may lii mooy ba mu demee ba xalaat Cheikh Omar Foutiou xalaat maam Alxaaji Abdullahi xalaat maam Alxaaji maam Alxaaji Maodo xalaat Cheikh Ahmadou Bamba ba mu gisee ne moom fii la jugee ñii ñooy ay référence am xalaat ki nga xam ne nag moom la moom lañ fa gën a xamee ci boo génnee bitim réew muy Mawlana Cheikh Islam Alhaaji Ibrahim Niass nga xam ne li yëngu olof danaan li ko yëngala ko ëpp doole moom mooy ki nga xam ne moo yëngal mbir yi ba mu demee ba mu gisee ne man ci ñii laa bàyyeekoo rek ba ma waxee rek ñoom dañoo dégg ne ko sami'na wa ataana ndaxte alquran dafa wax ñaar dafa ne samina wa ataana waaye nee na waa wa asayna kon ñu ngi sant yàlla ba nga xam ne ba mu fa demee ba xalaat ne man ci nii laa jógee nee nañ ko samina wa ataana te newuñ ko samina waa asayna loolu nag nekk ndamal Sénégal nekk ndamal Afrique ndaxte Sénégal tey jii nii lépp lu Afrique war a jiite rek Sénégal ko jiite Sénégal mooy président président de l'Union africaine Sénégal ko yore kon lii dafa nekkoon liggéey boo xam ne liggéeyu Union africain la kon bu ko doomi sénégalais defee dañuy wax ne Union africain moo ko def di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jëkk politique bi gis nañ ñoom tamit seen taxawaay ak seen déclaration yu ci def yëpp di ki ci mel ni Abdourahmane juuf ku ci mel ni usmaan Sonko ñëpp ñëpp rek nga xam ne def nañ ci ay déclaration wax ci ay wax yu rafet yëpp xam nañ ne gis nañ ko sëriñ bi gis na ko te tamit taalibe yi gis nañ ko ak ñi nga xam ne tamit ñoo féetee ci état bi di dimbali son excellence monsieur le président de la république Macky Sall loolu daal mooy li nga xam ne am nañu li ko am nañu duñ ciy wax waaye tamit di fàttaliwaat taalibe yi ne leen sëriñ bi dafa am benn sémb boo xam ne sémb na ko mooy li nga xam ne mooy toolu baay te lépp lépp lépp loo xam ne mi ngi koy def xam leen ne daf koo def ndaxte nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoo ñëw ne ko lii war nga koo def comme ni muy taxawee ci soxlaay nit ñi soxla bi nga xam ne nag moom mooy soxlaam mooy toolu bàyyi ndaxte li ngeen bëgg mooy Medina Baye autonome moom gis na Medina bàyyi du autonome lu dul ne dafa yaakaar ci boppam te yaakaar bi Medina di yaakaaree ci boppam mooy toolu Baye bii nii ñi defar ko moderniser ko mu toll ak jamono am ay usine de transformation di liggéey loo xam ne ñun ñoo ko moom di di di di génn ba pare di njëriñ bi di dellu siwaat ñun nga xam ne lépp luñ bëgg taxawal mu jëm ci xadara bi duñ nekk di xaar kenn ci lenn dañ koy jug defaral ko suñu bopp ndaxte am nañ ay usine ndaxte am nañ ay entreprise yoo xam ne mooy liggéey loolu kon ñu ngi ciy waat appel di wax képp kuy taalibe bàyyi xamal ni lii sa projet la ndaxte xam nañ ne taalibe bàyyi yi liñ bëggal Medina ci mbaax ci màgg ci rafet ñëpp xam nañ ko kon nag ñi ngi leen di wax ne yoon bii mooy yoon bi nga xam ne mooy yoon bi gën a gaaw ndaxte yoon lax boo xam ne buñ ci jaaree ñu otonom te dootuñu xaarati kenn dootuñu wax kenn ne leen kaay leen ñun kaay leen ngeen dimbali ñu ci lii wala duñu xaar kenn ci mu ñëw defaral ñu dara waaye lépp lu ñu soxla dinañ ko defaral suñu bopp li ci mel ni jumaa ji li ci mel ni yokk dëkk bi li ci mel ni defar assainissement dëkk bi li ci mel ni buñ nit ñi buñ ñëwee gàmm mën a am ay dalukaay yu jege ndaxte loolu yëpp dara mënuñu ko may lu dul ne ñun ñooy liggéeyal suñu bopp tabaxalal suñu bopp te liggéeyal suñu bopp nag tabax tabaxal suñu bopp ñun taalibe bàyyi ñun la war si ñun la war a jiitu sëriñ bi nag wane na exemple wan nañu yoon bi nga xam ne ci moom la ñu war a jaar te yoon boobu noonu mooy tool bi te buñ ko defee dinañ am lépp lu ñu soxla wa ma dalika allah bi aziz loolu daal mooy nekkoon loo xam ne message bi buggoon bëggoon jàllale di nuy ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah rasula ilahi العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى